Sénégal yi foo lay terminé suñu réew wi nañ ko bëgg suñu réew mi moom lañ am Sonko daa bëgg militaire jël pouvoir bi moo tax mu lëkkaloo woon ak capitaine Touré de la gendarmerie comme capitaine Sanogo di mu defal jël pouvoir bi au Mali Sonko est un putschiste Sonko nee na militaire malien yi ak militaire guinéen yi mu ngi wax ak ñoom cere ji bu ci lekkul dama ci xëpp suuf loolu mooy Sonko. xam na ne du ma sa nekk président Sénégal incha allah rabi ndax ku bëgg taal kuy taal koo xam ne boo gisee 14 morts doyaloo ci deret ngay dund di ci lekk comme dëmm kooku kooku kooku bu militaire yi jëlee pouvoir da ci kontaan comme mu xam ne ne mënul falu moom moom village la war a yore benn village bu ndaw la yore moo tax mu xëccoo ci mairie ba de man mii laaj présidentielle dégg naa benn instance mu ne oui amul représentativité moo tax demul élection locale mais kii liste majoritaire derrière Jean Baptiste Diouf kële Jolof fal ñu fal ko sama gars yi ñëpp lañ fal mais man xar ne weesu weesu mbote dama bëgg nekk président du Sénégal nu ma bëggee nekk président di ay gox-goxaan ay mbedd ak ay ku nekk chef de quartier chef de village comme Sonko chef de village loolu dama chef de village yow nga réew mi di xajoo ji ak chef xam nga ni da ngay xam na nga bëgg xar day wees sa nekk naa maire de ba astafurlah nekk naa ministre nekk député nekk avocat international macha allah nekk yaakaari Sénégal nekk l'homme du 23 juin lu may dox di xëccoo réew lu des ci lu may yore Sénégal ci jàmm ci xéewal ci bëgg ko ci jàppale ko taxawu ko Sénégal jëm kanam xale yi am liggéey jigéen ñi am ci luy jàpp mag ñi mën noppali ko am alal yoo xam ne di gaaw a dee Sénégal naat Sénégal jëm kanam je vous remercie